te mu gën a barkeel ci nuyoo yi te ñu tënk ko si juróomi baat muy asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñu continuer suñu programme firim téere bi ñuy firi tey risalatu ibn abi zeydin alxayrawaani ci sarxu alfawaakibu dawaani ñu commencé firi ci wàllu fiq bi mooy lii baabul ma lii mooy bunt li nga xam ne yajibu dina waral minhu ci moom alwudu njàpp wal xuslu ak sangu doomu aadama doo tëb tëb rek ne ko demal jàpp dina am lu xew nga soog koo wax jàppal doo tëb rek nee ko tamit demal sangu dina am lu xew nga doo ko wax demal sangu loolu di xew ba nga nee ko demal jàpp ji walla loolu di xew ba nga nee ko demal sangu ji bunt bii moom la lay jàngal ñu dem ci sarxa bi mu ne baabun baabun ma lii mooy bunt li nga xam ne yajubu dina waral minhu ci moom alwudu jàpp walla xusul ak sangu mu ne wal wudu njàpp luxatan ci luxa an nazaafatu mooy set wastilaahan ci ñooñ woy fekk yi mooy taxaaratu laab maa iyatu buy këjum ndox tastadil tas e, tamilu dina làmboo ala xasli wajhi ci raxas kanam ci raxas kanam wal yadayni ak ñaari loxo yi wa rijlayni ak ñaari tànka yi wa masxiraasi ak masaab bopp waaye bu nekkee na ngay jàpp nag masaa bopp mooy jiitu eh, eh, eh, raxas kii ñaari tànk yi kon jàpp bu ñu la newee la njàpp ci luxa njàpp mooy set waaye bu la waxee lan mooy jàpp ci ñooy fiq yi ne mooy laab buy këjum ndox buy làmboo raxas kanam gi ñaari loxo yi ñaari tànk yi ak masa bopp mu ne wal sangu ci ñooñu ci ci ci luxa mooy isaalun jox almaa i ndox ila jamii jasadi ci mboolem yaramam yi yaramam yi waaye bu ñu la ko laajee nag lan mooy sangu ci euh, ñooñu waa fekk yokk si bi niyati mooy yéene istibaaxatu dagana asalaatu julli ma addal ku ànd ak kon bu ñu la nee sangu ci luxa sangu ci luxa mooy jokk ndox mi e, jokk ndox ci booleem yaram bi waaye bu nekkee na dañ la wax na ci ñooñ woy feq yi nga yokk ci ne yéene daganal julli ànd ak kon booy sangu ajowul sa yéene bi ngay wax ci sa làmmi mu jëm kam kaw da koy wax ci sa xel fas ko ci sa xol ne yaa ngi fas naa yéene yëkkati toj bu mag wala fas naa yéene sangu janaba wala fas naa yéene sangu farata walla fas naa yéene daganal lu ñu tere woon ndax euh, boo amee sangu rek maanaam janaba dafa dina am jaamu yàlla yu ñu lay tere kon booy sangu mun nga yéene ne jaamu yàlla yooyu ñu la tere woon yaa ngi koy daganal mu ne alwudu njàpp yajibu dina war li ba ngir li génn min axadin ci benn almaxruja yi ni ñaari génnukaay kon njàpp la moo koy waral li koy waral mooy am lu génn ci ñaari génnokaay yi muy fu ñuy tuuree ndox ak fu ñuy demee duus te loolu nekk loo xamante ne lu fa baaxoo génne la ñëpp xam nañ ne bu dee ci kanam la fa baaxoo génn mooy tuur ndox walla wasiw walla masiw maniw tamit dina fa baaxoo di génn waaye bu dee maniw la nag bu nekkee bànneex ba ñu baaxoo euh, ba baaxoo kii génnewee maniw ci la génnewee maniw bu boobaa moom dafa war a sangu waaye bu nekkee nag dafa génnee maniw ci bànneex bu ñu baaxoowul génnee maniw bu boobaa du sangu waaye dina jàpp naka noonu tey buñ la wékkee nga génnee maniw wala ñu dóor la nga génne maniw loolu baaxoowuñ ci génne maniw kon foofu sangu waru la waaye sa njàpp toj na danga nga war a jàppaat na ko noonu ci bu nekkee tamit ci lu neex nga génnee maniw nga doon korokoro sa nopp wala di wokk sa taab wala góom nga yëg neex euh, bànneex ba mu ba nga génne ci maniw bu nekkee bànneex ba nga fa yëg nekkul bànneex ba ñu baaxoo yëg pour di ba génnee maniw maanaam bànneex sekk ak jigéen bu boobaa yow euh, doo sanguwaay dinga nga jàpp waaye bu nekkee bànneex bañ ci yëg nag mooy bànneex buy nit di yëg buy sekk ak jigéen boobaa yow da nga war sangu wasiwu wasiwu mooy ndox bi nga xamante ne dafa weex te woyof ñu baaxoo ko génnee ci ay jaxasoog jigéen walla fàttali ko ci jaxasoog jigéen wala di xalaat jigéen yu mel noonu lan mooy différence am ak maniw maniw boo euh, maniw bu wow boo ci sottee ndox da koy euh, naan waaye bu nekkee nag wasiw bu wow nag boo ci sottee ndox loolu du ko naan wadiw nag mooy li nga xamante ne baaxoo naa génne si jeexitu saw lu ko lu koy lu koy waral lu ëpp di ko waral mooy nit ki manqué deret walla stress stress wala yenu li diis wala coono yu mel noonu li nga xamante ne nag mooy génnee ginnaaw mooy naam dem duus lu ci bëri mooy ngelawal wala dem duus kon yooyu bu nekkee génnee na ginnaaw rek boobaa yow loolu dina waral jàpp waaye bu nekkee la fa génn baa fa wu faa génn rek dinañ ci ñëw ci kanam moom lay wax nii mu ne bayyana leeral na alxaariji aji génn al mutaadu euh, lu ñu ci aada bi xawli ci waxam min bawli ci génn ki génnee ndox aw xaayidi wala aw xaayidi wala dem duus aw riixi wala euh, ngelawal minal dubri jóge ca ginnaaw laa in xaraja déet bu génnee min fardil marati ci pey bu jigéen aw zakar aw zakar rajul wala Euh, awray góor kon li nga xamante ne dañ koo baaxew génnee ci kanam lu mel ni tuur ndox bu nekkee dem duusu moo fa génn walla ngelaw loolu du yàq jàpp tuur ndox tamit fa ñoo xamee ne foofu la baaxoo génn mooy kanam bu demee ba génn ci ginnaaw nag mu ne loolu tamit du yàq euh, jàpp waaw mu ne falaa yanqadu du yàq euh, jàpp mu ne li annahu ndax moom lam yaxruj génnul min mahalli ci bërëbam al mutaad buñ ko xamee mu ne wax xëyat naa tënk na nañu bi xawli naa suñu wax ala wifqi ci dëppool aadati aada lixtiraas yi ngir moytandiku anil xasaa xeer wadduudi ak euh, euh, sax al mutaxalliqayni ñoom ñaar nekk ay way juddu fil maidati ci euh, biir mu ne boo gisee nag muy insister li nga xamante ne baaxoo nañ ko génne ci barab yooyu ngir moytandiku lu mel ni ay xeer ak ay sax yoo xamante ne dafa juddu ci biir bi waaye bu nekkee nag judduwu fa da ko wan noonu mu daal di génn boobaa dafay yàq euh, njàpp moom lay wax nii bu nekkee nag loolu kii sax bi ak xeer dañoo judd ci biir bi mu ne boobaa fala yan daani du yàq ñoom ñaar du yàq njàpp walaw kaanam même bu nekkee alayhima si ñoom ñaar usiratun euh, usiratun maanaam euh, euh, dem duus kasiratun bu bëri waaw kon bu nekkee bu nekkee dem du ba mu fu muy demee duus sax walla xeer moo fa génn ba ñuy génn nag dem duus topp leen mu ne loolu du yàq e, e, njàpp léegi mu ñuy jàngal kañ e, ñu ñuy jàngal ndax loolu bu génnee dina ànd a sobe sobe boobu muy àndal ndax jéggal nañ ko jéggal nañ la ko am déet léegi balaa ñuy continuer mën nañ ko tënk si ñetti ñetti ñetti wax bu nekkee xeer bii di génn walla sax bii di génn chaque jour lay génn bu boobaa sobe boobu jéggal nañ ko ko mu néew mu bëri bu nekkee sobe bii di génn wala xeer bii di génn ak wala sax bii di génn la muy génn day du chaque jour day tëb te mu nekk lu néew lu tuuti bu boobaa tamit jéggal nañ ko lu tax ndax loolu di génn comme que ci bërëb euh, dem duus bi la nekkoon mënul ñàkk foog mu am lu mu ci taq kon loolu dañ ko si jéggal waaye bu nekkee day génn waaye du chaque jour day tëb waaye la muy àndal bëri na bu boobaa sobe boobu jéggaluñ ko ko ndax génn na ak loo xamante ne mënoon naa ñàkk kon nag tey bu nekkee chaque jour yow xeer bi day génn di ànd ak sobe mu néew mu bëri nga nekkoon di julli mu génn continuer sa julli jéggal nañ la ko bu nekkoon tamit dafa nekkoon di tëb du chaque jour lay génn ngay julli mu génn waaye lu néew la ànd ak si sobe continuer sa julli jéggal nañu la ko waaye bu nekkee day tëb du chaque jour lay ñëw te buy génn day ànd ak sobe bu bëri nga nekk di julli mu génn dangay xool bu nekkee waxtu bi yaatu na mën nga koo dem raxas ñëwaat am ci waxtu bi benn rakk mën ngaa dem nga raxas ko ñëw daal julli waaye bu nekkee nag boo fi jógee dem raxas ko ñëw dina fekk waxtu bi jeex boobu nag dañ lay jox euh, atte sobe rek boo ragalee waxtu bi passé rek na nga julleeg sobe boobu noonu mu ne yuufaa jéggal nañu ay xaariji ci aji génn alayhima ñoom ñaar mu ne falaa yajibu du war minhu ci ngénn uh, bi al wudu njàpp mu ne li annahu ndax uh, uh, moom taabiun aji topp la xuma ñeel xeer bi ak sax bi waxuma te xeer bi ak sax bi xëyun naar na ñoom duñu yàq njàpp mu ne fa taabi onxuma ña leen ña leen topp mooy nu mu tuddati sobe yi kazalika naka naka noonu mu ne kon li nga xamante ne moom moo génn muy xeer bi walla sax bi ñaar yooyu bu ñu génnee yàqul jàpp kon la nga xamante ne moo leen topp nag loolu tamit dañ koy jox atte xeer bi ak sax bi kon du yàq njàpp waaye bu nekkee tey jii danga doom dem duus xeer yi walla sax bi topp dem duus bi bu boobaa moom yàq na njàpp mu ne walla yeji bu du war raslu raxas ma li nga xamante ne asaaba takk na ko minhu ci euh, ci moom walaw kafiru même bu nekkee bëri na xay mu nekk xuruj génn alxasaa xeer bi wa duudi ak sax bi mustan mustankihan di euh, aji taqoo mu ne bi an bi an bi an mu ne bi an kaana mu nekk yaxruju génn fii kulli yawmin bés bu ne maratan benn fa aksar wala mu gën a bëri li xawli xalil ci waxu xalil mu ne wa ufee jéggal nañu ama ki nga xamante ne yaasiru dina jafe aw kaan wala mu nekk xurujuhuma génn ñoom ñaar maanaam e, e, sax bi ak kii bi xayra mustankiha fekk e, taqo taq taqoowuñu mu ne laakin waaye xal la néew na alxaarij aji génn alayhima si ñoom ñaar moom lañu tënk noonu mu ne zahiru li feeñ anal muraad la ñu namm bi xalil ci lu néew maa li nga xamante ne yastaxiilu dina jomb xurujuhuma sin génn bi duuni bi duuni hi walis ko mu ne li nga xamante ne moom la ñu wax lu néew la mooy loo xamante ne jomb na mu génn te àndul ak xeer boobu noonu na ko tey boo sànni woon xeer si benn soow rek laa budda moom booy génnee xeer wi xeer bi dina am lu ko topp ci soow loolu mën ta ñàkk mais am na noo koy génnee di nga génnewaale soow boo xamante ne mënoon na ko ñàkk topp mu ne kon fii tamit euh, noonu la mu ne laa in kaane déet bu nekkee kasiran lu bëri comme niñ ko waxee woon fee sànq mu ne faya jibu boobaa nag dina war isaalatuhu dind sobe bi anil muhalli ci bërëb li adami ngir ñàkk afu afu afuy jéggal an walis ko wa in haraja bu nekkee génn shay'un dara mimma ci li nga xamante ne laa yu faa jéggaluñ ko an walis ko mu ne waxu woon ne moom fi salaati mu ngi si julli bi badale di yàqu na euh, julli bi ka ka comme suquuti rotu saa sairal sairal najasaati mboolemu sobe yi alleti yi nga xamante ne lam yu faa jéggaluñu anha ci moom comme ni ko waxee woon bu nekkee nag jamono ba muy génn dafa nekk jamono joo xamante ne jéggaluñ la ko ci sobe ba ngay julli te waxtu bi yaatu na bu boobaa sa julli yàqu na waaw lii moo nekkoon suñu dars bu njëkk ci ar risalatu joxante dig daje incha allah si ba suñu ñaareel darsu asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu